yéen ñi vidéo ci chaîne di Sahaba TV dangay abonné te laal cloche de notification bi ngir di am lépp lu bàyyeekoo ci chaîne bi Sahaba TV toujours du bonheur nu seede kenn ku boroom bi seede ne seydinaa muhammad jaamam la ndawam la julleem ak sëlmalam yal na tabbi ci moom ak i ñooñam ak i saxaabaam ak liggéeykatam bu tedd bi ak képp ku roy sunnaam bés penc mbokki jullit yi waxoon nañ ci xutba bee jàlloon ak defare yàlla noon la defare de moo gën wala defaroo moo gën moo xam defaroo gi fu mu mën a doon moo xam ci kilifa yi la moo xam ci biir kër gi la moo xam ci diggante boroom kër beek soxna si la te ñu teet rayin wu ñaaw wi nga xam ne dañu koy gis ñi am doole di ko def ñi néew doole muy reyin wu ñaaw xattalul mu mën haj te lislaam dafa dikk ngir xettali nit ci la ñuy tuddee inqiraat inqiraat mooy mu dem ba yàgg amatut ngir ay reyanteeg yu ma xamul dem ba amatut looloo tax lislaam ñëw xett li ci nit mi nel inqiraat waaye bu ñu toppee li xew léegi day mel ni dañoo jëm ci loolu ñuy wax inqiraat moo tax lislaam dafa ñëw ngir xett li nit ci nit sax fi ci àdduna di fi des ba keroog yàlla soxla leen ak di fi sax moo tax lislaam digale ak tere soo gisee lislaam digale ak tere looloo tax ne mënoon naa bañ a digle dara mënoon naa bañ a dara bàyyi nu rek ñuy kandankanda gi lu ñu neex def ku la neex dóor ku la neex dugg waaye loolu lislaam defu moo tax suñu bëggee réew moo xam ne réew mu moom boppam lay bon ci mbooleem wàll yi faaw sellal sunu yéene te ñun ñëpp lay doon nag du doon kenn waaye ñëpp lay doon ñooy boole sellal seen yéene moo xam ñu nekk ci wet gi moo xam ñi nekk ci wet gi boo xam ne dañ koy yéene ju sell joo xam ne dañuy wormalante suñu diggante mooy ñu jiite ak ñin jiite pouvoir bi ak opposition bi ñu wormalante seen diggante mënut a ñàkk réew yi nga xam ne ñoo ñu jiite dañuy koy def te du dikk dara doo fa dégg benn coow seen diggante lislaam diglewul itam nag ñuy doyee dal nguur saa bu nguur toogee lislaam dafa bëgg ñu wormal ko loolu itam ñu siy bàyyi suñu xel bu ngeen defee ne lislaam bàyyi na dara ndax yàlla fi mu waxee ne bu ngeen juuyoo ci dara fi shay'in la wax wa in tanazaatum fi shay'in farudduhu ila allah waxaat ne wa maa faratnaa fil kitaabi min shay kon bul ne lislaam andiwul lépp lislaam andi na lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp laajoon nañ ko ba mu leeral ko ba xam ne muñ ci toppee rek du ñu tarxiis du ñu daan kon dañoo war a war maalante ñu wormaal itam ngóor bu xasee ba taxaw dañ koy wormaal waaye boo ko doyee dalee dafa am lu ci lislaam wax ku ñuy wax salamatu ibnu jaafi dafa laaj yonent bi ne ko waaw bu ñu demee ba ay bóor yoo xam ne dañoo ñëw sa gannaaw di ñu laaj seen àq ñu di leen ko jox ñoom sunu àq duñ ñu ko matalal loolu ñuy digal bu boobaa xam nga yonent bi ku la doon laaj ne wala lool rek loolu moo am loolu ñu digal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy won gannaaw bañ koo tontu. ñaari yonent bi lu mu tontuwul rek xam na ne amul njariñ ndax su ko tontoo ndax nanañ ko defam déet te buñ ko deful fitna lay doon yonent bi woon ko gannaaw mu laajaat ko yonent bi ne ko su fi ay nit buur nekkee yoo xam ne dañuy laaj sunu àq ba noppi duñ ñu matalal ñoom seen sunu seen te di laaj ñun li ñu war a jox ñu di ko matal te ñoom duñ ñu matalal sunu àq yonent bi ne ko na ngeen dégg te topp dégg leen li leen wax ngeen topp fi ñu leen jàll daa di ne fa innama alayhim ma xumilu wa alaykum ma xumiltum li ñu def ñoo ko yenu seen bàkkaari bopp la yéen itam lu ngeen def yéen a ko yenu wala taziru waziratun wisra uxra la alquran wax kenn du yenul nit bàkkaaram comme gàll nañ leen ñu yor réew ñu yor ko bu ñu jéggee ñooy jéggal seen bopp kon foofu yi sam wax na fa hadis boobu ñu dëppoo hadisu Abdullah ibn Mas'ud bi mu wax ne yonent bi dafa mas a toog ak ñoom ne leen day sama gannaaw day da ngeen fi gis ay mbir yoo xam ne yu doy waar lay doon yoo xam ne du ngeen ko xam te du leen neex ñu ne ko waaw bu boobaa looy digal ku ko fekkee ndax ñoom bàyyiwuñu dara buñ ko fekkee wuli danañ ko bind bàyyi ko fi ngir ñi wewu fekke ko mais boobaa looy digal fu ne mu ne mu ne leen bu boobaa àq ji leen war yéen na ngeen koy jox ñooña waaye seen àq yéen ngeen laaj ko yàlla subhanahu wa taala allahu akbar yàlla mën naa faj lépp ki la jaaxal tey ba teeg fee jël sa àq tàllal sa loxo yàlla rek yàgg naa ko fee wax wallaay bu lay jox sa àq day gaaw lool mbaa mu jële ko leen rek seen seen yàq ngeen laaj yàlla seen àq kon faw wormaalante day am ci diggante ñi nga xam ne ñoo jiite ñoo jiite ñu wormaal leen bañ di leen sànni ay baat yoo xam ne baati tuuma la yoo xam ne wérut loolu itam baaxul ngir bëgg ba yow yow sa njariñul bopp rek nga bëgg sa tuumaal leen baat boo xam ne wérut loolu itam baaxul noonu itam la yàlla subhaanahu wa taala digale ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite ñu am ñeewante ci ñin jiite di leen laabiire nasiha di leen yërëm bañ leen a nax waa deme rëcceem bañ leen a nax loolu nag moo bari léegi naxe naxe ñëw wax a wax a wax ba nga defee ne li muy wax dëgg la fekk dalay nax rek laa ilaha illa allah maqal ibni yasaar moo tax daa wax ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn kenn koo xam ne yàlla dalaa teg fenn di la fa sàmmloo lam la fay sàmmloo maanaam di la fa liggéeyloo dara bés ba nga faatoo fekk ñooña waroon nga leen loolu yàlla araamal na ci yow àjjana loolu lu ko jar ah àjjana moom la ñëpp wut bu fekkee ne yow bu ñu la jiitalee fi barab nga wor peuple ba yow kon loolu dara jëru ko àjjana kon xañ nga sa bopp àjjana loolu dara ko fexe ba am àjjana bul wor li nga li ngay jàpp ak li ngay wax na nekk na dëppook yow moo tax yonent ci salaay wax ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku ci nekk daan na laaj li nga doon sàmm njëkkee ko ci imaam élimaan day sàmm la danañ ko laaj la mu doon lañ koy sàmmloo la ñuy sàmmloo imaam mooy lan boo taxee boo taxawee ci kanam nit ñi dee leen wax dëgg na saw meloon mel noonu itam ku la fekk fekk ne noonu nga mel ba fa ngay néewee doole bu la alal jënd bu la doole tiitloo dara du la ragalloo yàlla rek kon liñ ko sàmm loo na ko sàmm góor nit ku nekk nee na sàmm nga ci sa biir kër daañ la laaj li nga doon sàmm ci sa biir kër sàmm la ci biir kër boroom këram daañ ko laaj lam doon sàmm liggéeykat bi sàmm la ci fa muy liggéeyee danañ ko laaj la mu doon sàmm ci kanam sangam yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku ci ne daañ la laaj la nga doon sàmm loolu rek dafa doyoon bi hadiis rek doyon na ci mu mu defar aduna defar alakhir ndax bu fekke ku ci nek fa nga nek sa bo yegge sa bureau ba dugg ba toog japp nga ne ah man de xoolatuma sax ah, nguur gi ma fal waye sa borom lay xol comme nee ma sam nga ministère bi ma jité mako ko ah danañ mako laaj bu ëllëgee luma ci doxone lu jar ñu audit lu jar benn audit yalla mo daqa audit ñepp te bu ko dana metti danañ lay yenn lo xamné li wallahi te doo dee yàlla def la weneen yaram woo xam ne yaram woo xam ne doon waramu nit ndax léeg-léeg nga wax nit ñu ne ah loolu du ko attan waaye yàlla lay bind ci weneen yaram woo xam ne da nga attan loolu ba noppi di ko yëg mel ni yow sax si yow mi fi nekkoon ci àdduna yaa koy yëg yàlla yàlla ku mu jàpp rek nga xam ne jàpp na la waaye ku mu dugal ci li itam nga xam ne dugal na la ci xéewal yal na yàlla boole dugal ci xéewal ci lii ndax jamono lu xew rek warees na cee looloo tax ñu jël suñu ba bi tey jëme ko ci mbooleem askanu Sénégal mbooleem ñi jiitee ñi jiite sax mbooleem mu ñu ne peuple bi ca la ci ñi jiite ca lañ bokk ñu jéem a def lépp lu ñu jariñ lépp lu ñuy jariñ ñun te bàyyi woote gi nga xam ne ci lañ nekk di woote teg ko fee te jéem a defar seenum réew ñoo bokk réew mi kenn mënu ci génne sa moroom defar réew mi fexe ba loo ko itam nag ñi nga xam ne tadaxulul xaariji maanaam dafa mel ni tey li may wax ci seytaane dafa am ñeneen seytaane yoo xam ne dañuy ne ci àdduna bi am doole lool bëgguñu lu may yëg ab xeex rek ba ñu mën a dugg suñ duggee nag ba ngeen xeex ñu jox leen i ngànnaay ba ngeen xeex ñu doxe fee ñoom taxaw ci seen koom-koom ba di ko jël di yóbbu rek wa tazabu bi sarawatil buldani naam yi jël seen koom-koom di ko yóbbu ngeen di tardé rek yéen di xeex rek tey jii rek ku xool ku déglu information da nga xam ne Amérique mi ngi moytandikuloo xe la am Soudan ndax euh, euh, euh, ñi ñu tuddee Wagner yi nga xam ne riche yi la nekk nga xam ne kuy xeex rek ñu ñëw dugal seeni ngànnaay ñu koy jàppale ka nga xam ne mooy mooy xemeyti ngir mu dal ci kaw force force bi nga xam ne moo doon moo doon moo doon moo doon soldats loolu boobu xeex fan la jëm ba ñu bari dañoo ragal ne loolu su fekkee ne dëkkul mën naa dem ba ñëw ci suñu réew yi ñu xoole ñoo njëkkate ñoom ñu ngi xaar rek xeex am pour ñu mën a dugal seeni i ngànnaay jox ko ñee ne ko xeex leen doon ci amoo dëgg xeexal yal nañu yàlla teetal loolu suñu réew ñu ne jiite yal nañu xalaat bu baax a baax di xam ni ñuy def te yàlla dong tax ñuy def moo tax lii nag buntu nasiha rek la laa biire mbokki jullit yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da waxoon ne diine laa biire rek la ku ko dégg na ko jariñoo moo xam ñi jiite la ak ñi jiite doy na sëkk ci ñun coono bi nga xam ne yenu nañ ko mooy

te loolu dara waralu ko lu mooy xëccoo yi rek xëccoo yi rek waaye bu ñu delloo ci lislaam rek danay mucc ci fitna yi ak xeex yi ndax lislaam diine la joo xam ne jàmm rek ko ko tabax jàmm rek ko ko tabax bu ngeen gisee yàlla li wax lii bu yàggoon léegi nit ki dana laaj ne waaw lan muy ulul amr ndax yàlla def ne topp leen yàlla topp yonent bi topp ulul amri mooy ñi jiite yàlla ba ñoon na fitna alxuraan li ma la wax bàyyiwul dara ba ñoon na fitna topp ñu leen jiite ndax ku ci nekk mënoo fee toog rek fi sax ba àdduna faw da nga mën a wàcc boo wàccul léegi léegi danga wàcc ni say moroom wàcc wàcc gi mooy ñëw wàcc ci bàmmeel rek danga wàcc ci coobarew wala nga wàcc këraan noonu la yàlla doxalee àdduna moom àdduna moom noonu lay doxee amul ku fi sax ana ana ana buri jitu won woon waaw moo mu ne ngeen len top limu ci bañ jax eh, wuute bi motax eh, eh, hadis ibnu omar yéen yonent bi salaa salaam da leen waxon len ku ci nek day del deg ko top ci li la neex ak li la bañ ci ñi nga xamne ñoy len di jité li leen neex ak li la bañ li nga bañ loolu lañ la digal na ak moy yalla neena sa buñ la digalee moy yalla nak bu len deg bu len top ma laaj leen fu ngeen gisagul léegi kenn ne ñun de dañuy manifester ngir baar bi ñu def ci dëkk bi dañuy manifester ngir nangam li ñu def fii lu baaxul lu neexul yàlla loola boo ko defee yàlla sant na la ko ndax lu lu lu dëgganul la lu topp yàlla waaye gis nga li li ñuy manifester lépp amul benn njariñ àdduna rek la seen ngeen li ma leen wax ah dañoo manifester ngir li ñu fi def day yàq sunu lislaam li ñu day yàq sunu nangam foo ki gisee gum amul kenn manifester wu ko de. te yàlla loolu la wax ne li leen topp ci li ñu leen digal li bu leen neexee bu leen naqaree fekk dañ leen digal mooy yàlla bu ñu leen digalee mooy yàlla nag yonent bi ne bu leen leen ca topp bu leen leen déggal te nu ngi digal lu mooy yàlla duñ ko def nañu am ceeb rek nañu am nangam rek nañu am nangam rek topp leen waaye duñu xool loo xam ne tey da yàq sunum réew ñu ne leen lii nanguwuñ ko nañ taxaw dindi ko kilifa yëpp àndandoo ne nañ ko dindi duñ ko def te dañuy ñëw ba ci ñoom di sàkku ñaan ak yu nekk yu xamul nañu wax dëgg dañ xoolaat sunu bopp ñun ñëpp tàmbalee ko ci kilifa yi ba ci ñi ci suuf ku ñëw di sàkku ci yow ñaan ne ko li nu bëgg mooy nangam ak nangam bala ma laa ñaanal bala ma laa ñaan dañu xoolaat suñu bopp su fekkee ne daal dañoo bëgg sunu réew mi ñu dund ci jàmm jàmm joo xam ne day sax faw ñu topp li ñu lislaam digal ci defare suñu diggante daw fitna bëggal jàmm ñépp ci la ñuy àgg ca fa ñu jëm te duñu lab duñu lab boo gisee ma ne duñu lab arax réew yu baree bare lab nañ dugal nañ leen ban lab mënatuñoo génn ci la ñu doon li ma ne ci misaal misaal mu gàtt Abdoulaye Bathily mi daan nekk ci politique tey ma nga libi di defare ba ñu rey Xadafi ba léegi amuñu jàmm te ñoo ñoo ñoo rey seen ji tëral ko ni tëral ko ni tubaab yeneen wax ba ñu rey ko tëral ko tey nag gis nañ ko tey nag gis nañ ko faw dañuy wormaal njiit dañ koy wormaal dañ koy wormaal su fekkee ne jëfandikoo nañu xadis yi ñu al li ñu lislaam digal jàmm rek la gis ku ñu wax Abdunu Malik radiyallahu anhu wax na dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñi gën ci seen ñi leen jiite mooy ñi nga xam ne bëgg ngeen leen ñu bëgg leen ngeen di leen ñaanal ñu leen ñaanal waaye ñi bañ ñi gën a bon ci seen i leen mooy ñi ngeen bañ mu ñu bañ leen ngeen di leen rëbb ñu leen rëbb kon yàlla yàlla def njiit yi fi jiite ñu bëgg leen ñu leen bëgg ñu leen ñaanal ñu leen ñaanal loola moo baax bëggeel gi nag ba mënta am lu dul da ngay da dañoo sellal li ma waxoon sellal yéene yi ku ci nekk liñ la jox nga sellal ne lii danaa ko matale ci peuple bi mat sëkk bu dee député la nga matal ko bu mat sëkk bañ cee boo demee ba xam ne sax lii mënta nekk bu fa toog rek di jël sa xaalis bàyyil loolu nag moo yàq réew mi da ngay dem ba xam ne lii ngay kaas lépp ci biir assemblée mënta nekk nga toog rek di jël sa xaalis damay bàyyi nga jékki-jékki bàyyi loolu dana dimbali sax sa morom boo léegi sa morom bàyyi ah am na ñu baax kat am na ay xiyaar yoo xam ne ñu génn kat du ne ku nekk rek ba leen taajalee medd mi ñu nekk di lekk rek di wéy déedéet dañuy génn génn. waaw nee na euh, bi mu waxee loolu bi yonent salaa waxee loolu yonent euh, euh, ñu laaj ko ne ko waaw kon tee ñoo xeex ak ñoom yonent bi ne déedéet feek ñu ngi taxawal ci yéen julli feek ñu ngi leen di bàyyi ngeen di julli bu leen xeex ak ñoom yonent bi salaa sallam ni mu fonkee julli kon may wax ñi nga xam ne ñoo jiite ak ñiy xëccoo yëpp ndax bàyyiwu leen xel ci sëriñ si tedd si toog di leen déglu te mu mënuñoo ñàkka bu leen jàpp ne dañoo mënta yor réew ndax bàyyiwuñu xel ci sëriñ si bàyyi waxal ci jigéen ñu néew doole ñi te gis yenn jigéen yi ñu ngi daw gàddu seeni bagage di daw ci yeneen réew yi daw wuti fu ñu làqatu gone yi bàyyiwuñu seen xel ci gone yi wala seen njëriñul bopp dong la ñu xool te fitna de yàlla waxoon na ne moo gën a metti dee fitna yàlla noonu ne moo gën a metti dee wal fitnatu ashaddu min al qatl ndax dee moom da ngay dee rek mu daal di jeex waaye fitna da lay topp rek xoola ki gàddu bagaasam dem génn këram dem ba ca àll ba toog fa ñuy jël ay camion yi sëf ay ay lekk bu ñëwee amaana nga am amaana doo am la la gënal amatoo ndox te dara waralu ko lu mooy ay nit yoo xam ne dañu fi nekk rek di xëccoo rek kon nañ bàyyi suñu xel ci loolu te xam ne te xam ne àdduna du politique ku jàpp ne àdduna jëpp mooy politique moom lay wax fakk fakk an na siyaasa ya dunya dañoo defee ne daal politique daal mooy àdduna moom boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp de àdduna du politique àdduna moom yàlla da ko fee bind ba noppi diggalee ñu wacc ko moo tax ku koy tànn rek tànnoo lu baax moo taxoon sëriñ bi radiyallahu anhu yàlla na yàlla fayal nu ko yàgg nañoo woon aw yoon ba muy wax naan kuy taxaw ci buntu bóor yi yaa ngi mel ni weñ woo xam ne dafa dal ci ay kii xoola booba wuteeg legi ah, da ngaa bëgg buntu buur lool ah buur bi damaa woo ngir ma gis gisee moom audience loolu rek ngay yàkkamti allahu akbar xoole ni ñu ak ñooñu xam ne ñoom bëgguñu sa won taxaw sax ku ne xam ne seen bi digganteem ak Lat jor ak ak xali jaxati mam xali niñ ko woowoo mu lank foofa nak la bu kenn jàpp ne du foofa de wala dañu jàpp ne sëñ bi moom li mu nekkoon da dul noona maa ngi leen di laaj kooku ab laaj la sëñ bi li mu doon digle ci ay téeréem léegi nga xam kenn dootu ko defee léegi ndax dañoo du noona ah bismillah bismillah kon nañu xam ne seytaane day dugg léeg-léeg di taaral nit ñi àdduna ji li ma ci jublu taalal ko ci ba nga xam ne dañuy nekk ci ay xëccooy politique yoo xam ne mën nañ cee yàq lu baree bare mën nañ cee taal fitna joo xam ne bu ëllëgee de su ko mën a téye de su ko mën a téye yal na yàlla musal ci loolu nañu bàyyi seen xel ci loolu bañ a taal fitna joo xam ne bu ëllëgee de su ko mën a téye yal yàlla dàqal loolu ci suñu réew mi te bëgg am réew yàlla def ci suñu xol nii ñu bëgg suñu réew bëgg am réew mooy. lepp lo xamne ne xam nga ne da ko na a yàq yow loola bum la ko jaral mom jar na nga bayyi yow buñ ko dee xëccio bo jalee bu la wóoree ne lii su ma koy xëccio mu yàq réew mi yàq la ma defoon ma bàyyi ko bari nañu ko defoon ci ay njiit dem ña ko xëccio woon ak ñoom léegi mujj ña leen ko joxoon ñoo leen fay daaneel bëgg a jëliwaat waaja demoon ngir ak ngoram mu ñëw loolu gis nañ ko ba koo jëli mu ñëw ngir ak ngoram kon na ñëpp ànd ak ngor rek te yàlla nee na bu ngeen xëccoo dara na ngeen ko delloo ci man fa in tanazaatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul bu ngeen xëccoo ci dara bu ngeen ko delloo ci yàlla ak yonent bi rek mën a mën a baax fi mu ne lii ñuy xëccoo lépp fi mu delloo ci yàlla te koo ci ne ab jullit nga mu lànk waaye koo ci ne waaye tey ngaa àtte woon lislaam muy àtte woon lislaam waa ji ñuy woo danañ ko bàyyi ndax lislaam moom preuve ju leer la wax ci bala ngaa woon ci yooyu waaye attewuñ ko xaanuun la ñuy attewu mooy droit nag suñu yónnewu ci suñu yónnewu ci waaye dañ leen wax li lislaam digle te ay jullit ngeen jullit nag dafa war a am fayda ci boppam li ma jàng ak li ma lislaam sant lan laa ci war a def yal yàlla dimbale ñu yàlla yàlla labal suñuy xol yal na yàlla suturaal suñuy ayib yal na yàlla wattuñu te wattu sunum réew yàlla na yàlla wattuñu te wattu sunum réew yal na yàlla wattuñu te wattu sunu ci bépp fitna bépp feebar بيب بلا امين يا رب العالمين جعلنا الله يسلم يسلم القران فيتم حسنا